ndeysaan euh, fi ma toog nii xam ngeen ni man euh, euh, lu ma toog toog di émission xam ngeen émission bi di c'est naturel ñun dañ koy def naturellement maa ngi xoolaale di xam li ne ci réseau yi je vois bien que Dieyla elle a posté une vidéo pour démentir li nga xam ni wax dëgg yàlla ñi ngi koy wax ci deram euh, mu doon loo xam ni man sax rafetlu wu ko ndax ku ne xam na ni jigéen ju diñ la jigéen ju mature la jigéen la joo xam ni euh, euh, ku bëgg li muy def la ku nangu liggéey la te ku sénégalais yi jox bopp la itam donc ñi ngi koy ñaanal tawféex ci yoonam yàlla na ko ci suñu borom defal jàmm waaye nag di ko xamal ni que ci milieu bii mu nekk bu mu yaakaar mukk ndekk ci carrière di ko def à tout moment di bégal sénégalais yi doo ci am yenn wax yu sew yi di ci romb ci yow lu baax la sante ko yàlla te xam ne du dara amaana am na ñu fi def lu pire te wax dëgg yàlla ba tey ñu ngi continuer di dund euh, te xam ne live moo tëbdee ni ni mel kon ñu ngi lay encourager davantage di encourager également sama petit frère di dan moom tam euh, di leen wax ni euh, lii mooy àddina c'est ça le Sénégal c'est ça l'Afrique c'est ça le monde entier donc ci milieu showbiz bi ngeen nekk xam leen ni lii mënu leen ci épargner mënu leen rëcc ci yi ni mel muy xëcca ak ku mu doon at eh, yéen na eh, on sait jamais waaw ah, mën nañ xëy ñu ne leen xësa lii ngeen naan waa kon xësa déglu leen rek da leen déglu toujours version wu nit ki lan la parce que milieu showbiz moo tëddee ni mel ñi ngi moytu nag lu ñu mën ñi ngi moytu ñi ngi daw mais xamoo kañ ak nan la ko nit yi di defee dafa ñaaw wax dëgg yàlla kon nag maa ngi leen di masaw bu baax a baax a baax baax a baax di leen wax ni je suis de tout cœur avec vous ndaxte wax dëgg yàlla muy jëy laa di dan di xëcha di keneen a keneen on est tous au même pied d'égalité on est des jeunes et que vraiment euh, ku ci nekk rek mi ngi dowal yoonam kon yàlla bu ci dara takk yàlla na yàlla defal leen jàmm taw je suis de tout cœur avec vous et je vous porte dans mon toujours inchallah je suis votre animateur je suis votre frère je suis votre ami rek lii du dara c'est juste un passage boo xam ni day romb xoolal we don't care we don't care <laughs>